pourquoi je dis que d'Orsène Parce que des gens sont venus rappeler que dans, une, dans un procès, il a été condamné, mon Timbirum Fatouk Ben magistrat mon euh, euh, euh, conseil constitutionnel ci bon comme y a eu loi d'amnistie peut-être que bëri doo mais nous dañoo défier woon la justice tey ñoo ñoo war a ñëw taxaw pour waxtaan ci lu jëm ci ëllëgub yoon de manière générale mais man sama conviction mooy ni tout le monde doit participer à ce à ce dialogue ou à ce débat tout le monde quand je dis tout le monde il y a déjà benn plateforme bu ñu teg pour mën a permettre citoyen yi ba nekk ca Fongolemi wala ko nekk fu sori koo xamee ni peut-être amul tur ak sant bu ko permettre mu mën a ñëw bokk ci mu mën a joxe xalaatam ci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 dialogue sur la justice un point là, ci dialogue bi ñu wara def de manière générale parce que a ci justice dañu tambali ci justice parce que si tu n'es pas dans un pays où tu te sens euh, défendu par la justice ak lu mëna xew fan lay mujjé mais bienvenue au Far West ni ñu euh, le gatsa gatsa excuse-moi de le de le rappeler ci les lay ñëw parce que da ngay ñëw ne ni comme man yoon mënuma ar, mais n'a fajal sama bop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 man pour man gis même waxtan bi ni sax est-ce que jaroon na ko parce que xamnañ lepp mom juriste la ñi fi nek dund nañu ci walu justice dara am luñu bind ci sen programme mais c'est vrai il faut dem ci assemblée nationale parce que par exemple président guen ci conseil supérieur de la magistrature du day ñëw rek ne ni bon man président bassir Diomaye fay bokkatuma non parce que dafa am yoon bay jaar il faut nga dem assemblée